waaye ñu ngi ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla wéral leen génne leen ca bërëb yooyu ba ñu gaaw doxi seen ay activité daf cay am solo lool lool lool ñaanal itam ñi ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njëggalu suñu borom njëggal googu yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi fàttaliku suñu ay wayjur sunu ay soppe sunu ay wasila yéen itam di leen wax rek ngeen ñaanal leen ndax àdduna noonu la demal maa ngi ñëw la ñu dellu si nag ci émission wareef avec un peu de retard di leen ci balu ak di leen wax ne rek c'est pour mieux faire macha allah ni ñu koy waxee reculer pour mieux sauter ma feggoo fi nag ki nga xam ne mooy Ndoye Bane baaxoo di ma mami Linguère jamono yii ma ngay toppatoo nenne jàkkaarloog ñun ñu ngi koy dolli ñaanal yàlla macha allah ànd itam ak sunu gan goo xam ne invité de marque la ci ñun Ndoye Bane ma jox la kàddu ba noppi. merci beaucoup Eva ñu ngi lay ziar di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar waa Pire Sañu Xoor ak ñëpp ñi nga xam ni ña nga fa rek di sunu di ci jiital sunu. xalifa ba Serigne Mansour Cissé ak Serigne Maodo Cissé ak moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire ak tous les notables de Pire di ziar sunu commandant bi mhm. maanaam ko mais respect mon commandant je suis à l'infinitif mhm. merci beaucoup xam naa ñu daal di tàmbali affaire yi ah, ah. très bien nee na ko respect mon commandant ñu nitam ñu ngi lay dalal ak jàmm commandant Sylla tey ñu kontaan lool ndax mbokk yi bu ñu fàttalikoo thème bi xam ngeen ne ñu ngi waxtaanee citoyenneté ak patriotisme te mënuñu ko wax bàyyi la jeunesse mënuñu ko wax bàyyi ñi nga xam ne ñooy homme de tenue macha allah mënuñu ko wax bàyyi képp koo xam ne bu ñu nee Sénégal bu nuy wootee dañ ko ci njëkk woo macha allah kon armee bi ñu ngi leen di beral nuyoo képp koo xam ne yaa ngi ca ministère yi ñu ngi lay nuyu képp koo xam ne yaa ngi yar di yeete ñu ngi lay nuyu rawatina nag commandant Sylla mi nga xam ne moo fi toog tey ñuy kontaan loolu ndax man dinaa ñëw xam li nga xam ne mooy la symbolique de la république bu ca kanamee ding ci dikk bi bismillah commandant. Euh, asalaamaaleykum euh, soxna Awa. Euh, heureusement Ndoye Bane xam na boppam ndax nee na il est à l'infinitif <laughs> euh, bu nekkaloon à l'infinitif ma daal di koy euh, dóor benn contre batterie bu gaaw. contre naka. contre batterie bu gaaw acteurs yi xam nañ li may wax parce que moom yàgg na. <laughs> cavalier la ci cavalier la ah, xam na bu baax fi may waxee. parce que eh loolu entre cavalier la ak acteur. Mhm. mais d'abord ci ndorteel bi may ngeen may ma ma jaale ak armée sénégalaise ci la bokk jaale ñëpp. ndax xam ngeen ne semaine passée am na tiis bu ñu dal. muy suñu ñett ñi nga xamante ni ci ñun lañu bokk te ñëw bokk ak Médélé ak dëddu. Mhm. Euh, suba sax lañ leen war a defal euh, bu soobee yàlla leve de corps. Mhm. Euh, may jaal seeni mbokk. di leen ñaanal yàlla nañu rëccu liñ doon nekkee ci àdduna. amiin ñu si des tamit di sama kilifa ci armée yi may ñaanal ñëpp gudd fan ak wér yaram. mais nag euh, euh, ñun man service civique national laa bokk. donc euh, ci nuyoo bi dama foogoon a jiital sama ministre de la jeunesse. muy madame Néné Fatoumata Tall. muy suñu ministre bu bees bi. nuyu aussi ñoom colonel Kismoso ak ñi may liggéey ñëpp ak nuyu volontaires yi mais tamit fàttewuma sama njaboot samay doom ak samay xarit. ak samay classe ak ñi ma ñëw ñëpp ak ma maa leen di nuyu. di leen ziar di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ak sutura ak teggin jërëjëf ne yéen lu lu teggin bokkul salaam bokkul newu leen ca mhm. loolu ñun leer nañu bu baax a baax euh, bu ma la dee wax rek dama lay wax ni commencé nañu thème bi euh, jot nañ fi jukki mbir yu bare bare bare mhm. jëmale ko ci wàllum euh, citoyenneté ak patriotisme mhm. tey boo dikkoon rek yow tënk rek soog a dugg lan ngay wax laataay dara li may wax mooy Euh, waxoon naa ko université Bambey wax feneen euh, civisme ak patriotisme léegi boo xoolee muy ci journaux yi muy ci télé yi muy ci autorité yëpp ñëpp ñu ngi déplorer euh, comportement yi ak doxalin bu nga xamante ni àndul ak ñun nit ñi yaree àndul ak li fi mag ñi xamoon. c'est man damay ne sax doon nañu wax ay final Égypte Sénégal ak final footballeur yëpp. Hmm. mais defe naa sport bi gën a am solo léegi ci Sénégal te mu bokk ci priorité état bi mooy indiscipline bi fi am maanaam ñàkk teggin bi ñàkk wormaal bi ñàkk sutura bi jiiñante bi ak waxante bu ñaaw bu nga xamante ni bokkul woon ci li nga xamante ni nekkoon lu yeneen réew yi nawe woon Sénégal ndax Sénégal toujours ñëpp xamoon nañ ko muy ci côté armée muy ci côté diplomatie muy ci côté citoyen mm-hmm. amoon nañ ay maanaam doxalin yoo xamante ne ñëpp dañu leen ci doon naw mm-hmm. mais dafa mel ne léegi li ñuy naan ginnaaw kudd bi moom moo commencé di am donc ñun service civique national mm-hmm. déjà depuis 2017 euh, ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi di Euh, président de la république di chef suprême des armées mhm. euh, mu nga baal ma mu wax ko ci mu wax ko tuuti français mhm. ne woon au cours de l'année j'exhorte les armées le service civique national à amener les Sénégalais à mieux respecter le bien collectif à mieux aimer et honorer les symboles de la République c'est ainsi que nous serons prêts au péril de notre vie à défendre le Sénégal donc boo xoolee constat bi amer na constat bi pilule la mais nag Euh, du euh, ñëpp ci am responsabilité. Hmm. loolu danañ ci gën a xuusaat ci biir émission bi. parce que état bi am na ci responsabilité société civile bi am na ci responsabilité yéen ñi presse bi am ngeen ci responsabilité famille am nañ ci responsabilité éducation bi am na ci responsabilité responsabilité maanaam c'est partagé ndax àdduna dafa nekk ñett phase ngeen baal ma ma xaw cee xuus tuuti. Hmm. Euh, muy démb nan lañ meloon tey fan lañ toll ak ëllëg fan lañ jëm. bu ci kanamee tuuti dinañ ci gën a jërëjëf. Mhm. bu ci kanamee tuuti commandant nee na dinañ ci xuus waaye li ñu mën a teg rek ci waxam mooy ne il faut avoir un profond respect du passé pour nga xam fa nga jugee ak fa nga bëgg a àgg ne boo xamul sa démb xamoo la nga doon def xamoo koo doon wax dëgg yàlla réer. daf lay daal di dikkal ndoy baan yow itam bisimilah. merci beaucoup euh, Eva ñuy sant di baax baax ci commandant dañuy daal di ñëw rek de focus ci moom. Mhm. carrément bala ma lay laaj service par exemple service civique national lan mooy seen mission. Mhm. fii ci réew mi. Euh, service civique national d' abord référence bi mooy décret 98 25 euh, bu 7 avril 1998 moom moo ko defoon une agence. mais à la subvenance alternance cest à bi alternance amee euh, dafa jóge ci agence nekk direction rattachée au ministère de la jeunesse bu njëkk ba primature la léegi mu nekk ci ministère euh, de la jeunesse mm-hmm. euh, boobu moom mooy décret 2313 mm-hmm. moom moo ko moom moo ko créé mm-hmm. mais avant 1998 tamit comme ni ñu ko waxoon nit ki da xool démb au lendemain des indépendances genre modèle boobu amoon na fa ndax amoon na en 1960 li ñuy wax euh, les camps de jeunesse. Mm-hmm. après mu am les chantiers écoles. Mm-hmm. en 1968 mu am li ñuy wax maintenant les pionniers. 1998 mm-hmm. ci le service civique national ñëwee nekkoon primature léegi ñu jël ko yóbbu ko suñu mission nag mooy maanaam mobiliser ay jeunes. ay jeunes yoo xamante ni dañ leen di mobiliser former leen mettre leen à la disposition des grands travaux de l'État. bu ñu paree ci travaux de l'État ñu aider leen aussi à la réinsertion sociale looloo tax depuis loolu boo xoolee filière yu bëri service civil national jot na ci former ay nit mm-hmm. maanaam boo xoolee lu mel ne côté pêche service civique national joué na ci boo xoolee lu mel ne développement local joué ci boo xoolee lu mel ne volontaire actuellement ñoom ñoo nekk euh, en mouvement mooy volontaire d'appui aux communes nga xam dañ leen mettre à la disposition des commune am na am na lu ñuy wax aussi les volontaires de l'agriculture nekk na ay xale yoo xamante ni dañ leen di tàggat ñett semaine lay def mm-hmm. ñaari semaines yi dañ leen di defal formation civique euh, semaine bu njëkk bi formation militaire mm-hmm. parce que nit ki bu amul discipline mm-hmm. loo ko financé financé mhm. bu xamul li mu yog mooy lan du xam nu mu koy yogee mhm. su yaruwul donc dañu la ciy tàggat mhm. beneen bi sur le plan technique ñu formé la pendant quinze jours euh, boo xoolee ma li ma ci gën a neex mooy surtout man bi ma fa nekk léegi ndax maa ngi fay def ñetti at mooy li ñuy wax les volontaires de l' agriculture euh, ci ñetti semaine dañ lay formé modèle FQE bu armée bi la mooy formation qualification à emploi dañ lay defal formation boo xamante ni ci ñaari semaines da ngay nekk technicien de l' agriculture Euh, di nga dem suñu ferme civique bi nekk Sangalkam nga def fa immersion soo paree ñu jël maintenant mettre la à la disposition des DRDR mooy les directeurs régionaux de développement ruraux. ma leen di saluer au passage ñoom ñëpp ñoom ñu jël xale yi ñaax leen ci lu tolloog ñaari ak hmm. boo xoolee ñu ci bëri dinañ mën a demal seen bopp. tey boo xoolee aussi ci volontaire de la presse ñu ci bëri fonction publique jël na leen mais nag boobu bu njëkk ba la nekkoon nañ agence mais tey aussi euh, gis nañ ko aussi avec les péripéties de la vie. am na yoo xamante ni. Mhm. xaw na gàllankoor tuuti. ci foofu nag laay saluer ima euh, courage u madame euh, Néné Fatoumata Tall. Mhm. Euh, gis na difficulté parce que balaa ngaa am solution. Mhm. da ngay laajte la muy difficulté yi. taxaw na posé na sur la taable problème yi. ñu wax ko moom mi ngi jóg actuellement pour euh, saafara ko donc muy nekk loo xamante genre dialectique la boo xamante ni maa ngi koy saluer au passage. mais est ce que mën nga ñu wax Eva nga moom kii tuuti. Euh, euh, la différence entre patriotisme civisme et citoyenneté. soo ko mënoon voilà. parce que xam nga ay ay ay concept la. civisme maanaam boo ko déggee rek mooy respect respect vis-à-vis également. ñi nga nekkal ni ngay doxalee yooyu yëpp ñëw ci mhm. boo ñëwee nag ci patriotisme loolu moom mooy li koy firndeel mooy bëgg sa réew mais balaa ngaa bëgg sa réew da ngay xam sa réew lan moo lal état lan moo lal société bi ci loolu bu ñu am état dinañ ñëwaat un ci li ñu ko doon wax sànq maag soxna Eva mhm. ak yow ci euh, lan mooy symbole bu république bi ak lan mooy symbolique de la république maanaam lan mooy armoire yi donc patriotisme boo ko defee mooy yow sa sa réew mm-hmm. doo ko méngaleeg leen doo ko tolloo ak leen te boo xoolee même ba ci Sénégal xam nga diine yi lislaam moo fi ëpp ak catholicisme mm-hmm. ñoom ñaar ñëpp dafa nekk diine yoo xamante ni nangu nañ ni ki nga xamante ni bëgg na réewam gëm na réewam bokk na ci jaamu yàlla donc loolu moom mooy civisme euh, euh, citoyenneté nag euh, comment dirais-je encore citoyenneté dafa am mooy ki nga xamante ni xam na ay devoir am xam na ay droit droit am maanaam comme seen émission bi nga xam sa wareef balaa ngaa laaj sa waru gar daf ci am solo looloo tax tey man maa ngi la maa ngi koy faral di wax Sénégal boo seetloo léegi dafa am ñaari bi ñu fi dëkk. Mhm. mooy ñi nga xamante ni citoyen lañ xam nañ lan mooy seen réew. xam nañ lan mooy seen wareef. Mhm. xam nañ lan mooy seen wareef ak ñoo xam dañ fay dëkk. xam nga yow habitant boo ko nekkee sa yoon nekkul ci dara. bu mbalit mi ba di nga gis mbalit taxaw fële nga nga lekk sànni di nga gis passerelle fële nga jaar ci suufu pont bi nga toog tey nga gis kilifa diine kilifa aada kilifa cosaan wala sa kilifa doo ko warmaal wala booy wax doo wax ak moom ci teggin gi nga xamante naay am habitude si ñëw mhm. muy lu ma neex trop te maam Abdou Aziz Dabaax daan ko wax yàlla nañu ko yàlla fayal ndax maam Abdou doon na wax ne euh, kii nga xamante ni di suñu wasila di maam Alaaji Malick tegaat ci ñetti at yoo xamante ni jàng na ko ci teggin mhm. mu ne moom waroon na jàng lu ñuy toll ci mhm. teggin ndax lan ndax doomu aadama boo amee teggin ëllëg mën nañ la rus ba yàlla muu bëtu malaaka yi mu rawalal donc dafa nekk yoo xamante ni ay qualité la yoo xamante ni daan nañ ko doxal Sénégal muy jom muy fulla muy fayda muy fit muy masla muy teraanga ak colin bi ak waxin bi mhm. ak jëfin bi dafa nekk ay valeurs yoo xamante ni léegi mel na ne ñun ñëpp am nañ ci responsabilité muy état bi muy société civile bi muy parti politique yi muy média yi mhm. tout le monde a sa part de responsabilité xam nga loolu lépp bu ñu ko bëggee saafara mhm. il faut que ñu am pas-pasu dégluwante déglu qu'on s'écoute ñu nangoo di waxante ñu wangoo ak tamit di seede dëgg ndax doomu aadama bu baax waroo am xarit sa jëf moo war nekk sa xarit. Mm-hmm. ndax bu fekkee gëm nga ne catholique nga wala gëm nga ne musulman la ndax nit ki dangay am ay base religieuse na nga xam ne say jëf ëllëg moo lay wéttali donc nekk na ay valeurs yoo xamante ni war nañ ko xool mais tey. ki nga xamante ni moom lañ yaakaar ne moo gën a utile ci réew mi mooy ko am alal non du ko am alal moo gën a utile du ko am ay mbagg général wala du ko am ay mbaggu caporal moom moo gën a utile wala ay mbaggu ingénieur wala ay mbaggu ministre ki gën a utile ci dëkk bi moo mooy kan mooy ki nga xam ki gën a baax ci dëkk mooy ki nga xamante ni dafa utile pour sa communauté donc mu nekk ay valeurs yoo xamante ne war nañ ko xoolaat mais aussi ci ñi ma accuser aussi parce que tey dama ñëw pour accuser système éducatif bi aussi bokk na ci ndax ñun école am na nuñ fa daan duggee bañ nekkee xale école am na nuñ fa daan waxee am na nuñ daan solo mais xoola tey xale yi lu ñuy sol nga baal ma ma xaw cee xuus ay jiin yoo xamante ni mel seen kër gi ay jinax ñoo fa nekk tey bu ñu la newoon dañ la invité pour premier emploi nga war a daje koo xam ne daf la recruter wala nga war a ñëw TFM tey ñu ne la kaay ñuy auditionné la pour la comme employé wala président de la république war na la recevoir wala tey xalif général war na la recevoir wala tey war nga am fenn fawtu est-ce que di nga am nooy solo di nga xool bu baax ni ngay sol moo tax ma ne yenn yëpp sa bopp la d'abord parce que civisme mooy respecter d'abord sa bopp nit ki da ngay sa bopp ba pare ngay doog civisme bokk na ci respecter sa bopp respecter sa bopp bokk na ci aar sa bopp aaraale ñeneen ñi. Mhm. moo tax dañuy féliciter itam wax dëgg yàlla jàngalekat yi di leen encourager di leen ñaax. Mhm. di leen wax ne nu lu ne tey gis ngeen ko tijji tey école yu bare la ndax programme français bi moo jiitu woon. Mhm. xale ya tijji waaye tey nag ñu mel ni Eva doon jàngee fële ca Malick si wax dëgg yàlla tey mooy seen tijji école ñu leen di la ñaanal nag une bonne année scolaire mm-hmm. mu ànd ak lépp li nga xam ne rek bu ca nekkee dana ko baaxal ñu bàyyi bàyyi ñu bañ ñu moytu euh, euh, bàyyi euh, enseignants yi dem ba ca biir am ay problème nañu ko teel a jël les devant teel leen gunge bu ko defee année scolaire bi daal dana dana baax. Mhm. loolu lañ ci bëggoon a mhm. yokk rek. et ñun ñëpp nag ñu xool comment soutenir le milieu scolaire daf ciy am solo bu ñu ne rek jàngalekat yi ñoo yor xale yi mais ñun itam ay wayjur lañu comme ni mu ko waxee te defe naa ne citoyen bu baax bi yaa ngi koy defaree tout d'abord ci biir këram ci milieu naturel am. Mhm. fa nga xam ne fa la nekk. bu ko defee bu génnee comportement boobu. lay yóbbu ci biti ndoy baan waaye man itam li nga xam ne moo nekk sunu gannaaw. wax dëgg yàlla gis nga lu ne lu ne état que man patrie que man ndax ñun fii ku fi tegoon dara. Mhm. dana am foo jaar waxanteeg ñoom. Mhm, mhm, waaye mbir la moo xam ne euh, dañu koy dañu koy romb rek. dañu koy romb j'ose dire. signification yi ci nekk yépp ñi mel ni Eva duñ ko xam mhm. gis nañ fi benn lion penchant wala lion dansant xaw ma naka laa koy tuddee mhm. gis naa fi baobab mu mel ni ndox a nekk ci suuf mhm. gis fi ay ay kile pal nu ñu koy waxee palme la de voilà et signification boobu tey commandant bëggoon nañu c'est l'occasion nga won ko xale yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan pour que fu ñu rombati li ñu xam ne c'est du sérieux moo tax ma bëgg ko laaj mu bëgg ko laaj ci lii nii lii la Eva di laaj nii souvent sénégalais yi dañuy dégg ñu naan ministre de la justice garde des sceaux. Hmm. Sénégalais yu bari intellectuel yu bari xamuñu lan mooy so lan mooy sceau fii. <laughs> waaw euh, doy waar li nga ma dinaa ci soog a tontu tuuti. Hmm. mais balaa ma cee ñëw ma fàttaliwaat leen rek parce que dafa am un écrivain qui ma cee ak message am. mu am solo muy Martin Luther King. Ah. Euh, mais invité Sénégalais yi euh, li Martin Luther King wax. nous devons apprendre à vivre ensemble sinon nous allons tous mourir comme des idiots. comme les studios. Euh, war nañu toog ñu xoolaat suñu nekkin. Mm-hmm. Euh, balaa maa ñëw ci lii ndax li tax ma la ko série de frustration ilo de frustration yi am bis bu amee jonction day am règlement de compte euh, te boo xoolee recrutement yi nga xamante ni surtout ay terroristes ak ñu bëri ñu ngi koy def. mooy des gens qui se sentent marginalisés ou bien des gens qui se sentent frustrés ou bien qui se disent qu'ils sont un peu à marge de la société donc euh, nañ leen xoolewaat encore le maam Abdou doon wax nañu waat doxin bi mais ñëwaat aussi si sama was la sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke balaa ma ci ñëwaat ndax doon na wax ne fayal euh, ku amul war ma mm. doo yor dara ku amul teggin doo teggi dara ma daa di daanal nag maintenant si li nga xamante ni moom mooy symbolique de l république li gis nii mm-hmm. moom la ñuy wax la symbolique de la république am na temps sax boo daan xool euh, son excellence le président de la république ñun nag armée bu ñu nee son excellence le président de la république waxuñu président APR wala wala daal on parle du chef suprême des armées c'est notre premier chef à qui nous devons respect obéissance et tous les honneurs dus à son rang bu daan wax généralement daa nga gis drapeau mais Euh, am na gëstu bu may defaat ci lu tax léegi may gis pour Union africaine muy nekk ci ginnaawam. ak mhm. drapeau Sénégal mais bu njëkk bi moo ci doon ne bi dañuy wax la symbolique de la République lii nga gis nii lii nga gis nii lii écusson la qui est divisé en deux parties une partie rouge où on trouve ce qu'on appelle lion passant lion bi nag moom mooy symboliser fit courage jom gaynde gu ne gaynde waaw kon donc kii aussi comme ni mu ko waxee ci garde des sceaux so yi moom mooy ñaari façon sceaux moo am benn boo xamante ni pour président de la république moom rek moo ko yellool cachet rek am ko bii mooy premier sceau bi bi am rouge moom la ñuy wax le lion passant ci écusson bi toujours nga gis léegi lii nga gis nii euh, moom la ñuy baobab la ñëpp xam nañ ne savane bi lan lay wax lan lay wax te baobab ñëpp xam nañ longévité am day gudd fan gudd fanam donc loolu mooy baobab lii moom mooy cours d'eau boo xoolee Sénégal aussi dañoo am ndox boo xoolee yàlla fleuve Sénégal mais aussi am nañ ay bras de mer et et cetera donc l'eau aussi c'est source de vie mhm. euh, jaune bi aussi couleur or la euh, maanaam ci richesse lii nga gis ni étoile bi Sénégal bi muy am indépendance danañ ko ñëwaat tuuti ci drapeau drapeau bi amoon na beneen si euh, étoile bi amoon na signification bu ñu ñëwee ci drapeau danañ ci ñëw ma xaw a boobu bu ñu ci ñëwee danañ ci ñëwaat tuuti hmm. lii nag li ñuy wax palme de laurier d'accord palme la palm bii nag ci lañ def suñu devise gis nga un peuple un but et une foi ci suuf gis nga fii c'est les décorations hmm. décoration ci ñaari fànn lañ koy joxee Euh, pour service imminent maanaam nga def lu rëy. pour moom la ñuy wax ñu naan la ay euh, officier de l'ordre national du Lion exemple. Mm-hmm. ou bien officier de l'ordre national euh, chevalier de l'ordre national du Lion. beneen bi danañ ko joxe aussi pour service rendu. à la nation la nation toujours. ou bien même au service ou bien aux institutions. boobu moom lañ koy joxe ci côté boobu mooy li ñuy wax service rendu. Mm-hmm. donc dafa nekk loo xamante ni ci symbolique bi la te day forger un bon patriote mm-hmm. moo tax dinaa xuus tuuti ci lii ak ci tuuti ci drapeau bi parce que drapeau bi Euh, dafa am solo. tey euh, euh, d'abord may naa la bi soxna Aida. soxna Eva jëlal bi ma may bi Ndoye Ban. service civique moo leen ko jox. bi ma ak drapeau bi may jël rek ñaw ko caaya de. non ngi toj. léegi boo xoolee soxna suñ naan madame Dour. ma nga mm-hmm. naan ak man ak man ak man. lii daf ma lii daf ma ñor soxna Eva. ah qu'est-ce qu'il est beau gis nga euh, euh, ma ma jóg tuuti. ba tey ba tey baan yow c'est des yëfi soldaar la de. yëfi soldaar la jàppal fii ci cat te jàppal bu baax nag bi. très bien gis nga drapeau bi nga gis nii. Mhm. kii étoile la. d'accord tàllal ni euh, Eva sa loxo. d'accord alors alors il faut que ma def ko nii. pour que verte bi ñëw nii. très bien Eva Tra man kook nii la lii moo am. non non defaat ko nii. parce que étoile bi nii jàpp jàppal na leen na leen mu jóg nii. alors on fait ça. non xaaral étoile bi non non defal nii. étoile bi gis nga toujours. ah oui lii bopp la. d'accord kii kii nit la lii moom mooy étoile. c'est le c'est le bonhomme moo tax ñu ne leen. Uh-huh. kenn du ko juutal. Uh-huh. kenn du ko wëlbati. Uh-huh. ndax xam nga nit boo wëlbatee bopp bi. dootul réfléchir. ça fait pas bon signe. très bien may waxaat encore Sénégal. bi ñuy am indépendance avant ñu am indépendance dañu bokkoon ci benn fédération mais couleur yi lañ amoon. mais xoolal yàlla di suturaale Sénégal. ñett parti ñoo fi amoon à l'époque et il fallait très vite ñu def benn drapeau. mais drapeau day am couleur yàlla def ñett parti ku ci nekk am sa couleur bokk xam kon yàllaa ñuy suturaal. verte bi moom moo nekkoon pour bloc démocratique sénégalais. d'accord jaune bi moom moo nekkoon pour mouvement populaire sénégalais. bii moom moo nekkoon pour parti sénégalais d'action socialiste étoile bi moom moo remplacé hologramme ñett parti yi nag ñooy fusionné ci indépendance bi yàlla ormal ñu ñu créé li ñuy wax UPS union progressiste sénégalais moom mooy maamu parti socialiste d'accord parce que bu ñu fi nekkoon di xiigoog ngaayo kon mënoon na am ñoo xamante ni danañ mën a cabaxal dugg ci biir réew mi am nañ di mais on avait des hommes avertis te ñett ñi ñu woon obédience mais pour l'intérêt supérieur de la nation loolu moo lay wane seen patriotisme danoo nangoo ànd tey def ak drapeau bi. Mhm. mais drapeau bi tamit dafa am nañ koy lemeen ndoy baan defal nii. ñu gaaw ci balaa ñu xuus. Ah euh, defal nii. Mhm. defaatal nii. Mhm. indil nii. bu ñu koy denc très bien léegi ndoy baan léegi yow jàppal ni waaw ñëwal nii pilier nii encore bi nii gis nga ni mu ñëwee nii gis nga boo xoolee drapeau dañ koy ormal xonq yi yëpp di feeñ donc ni ma leen ko joxee li mhm. nii la drapeau bi di feeñee donc lii drapeau bi ngay gis ni mhm. bokk na ci li ñuy wax symbole de la république te commune une service civique national ñun lii rek la ñuy dox pour nit ñi di xam seen symbole ak symbolique de la république dama bëgg Eva bu ma ñëwee TFM nga ne Youssou Ndour bëgg naa fi drapeau moom laa jox drapeau bi moom laa bëgg ñu njëkk koo yëkkati ci buntu bi très bien yow aussi Ndeye moom bi yàgg nga yëkkati drapeau nag leen woon nuñ ko yëkkatee yoon nag soxna Eva yow moom beneen sama bës a ngi te dégg naa sax du ñu teg dara ci kawam itam très bien drapeau kenn du ci teg dara xam nga et li yàlla lay def commandant doguma la bi ñuy wax waxu drapeau yàlla dafa dox dox ñu jug taxaw mhm. c'est ça qui est oh, normal tu vois. aywa mm. bisimilah àggali. donc euh, drapeau bi boo xoolee moom mooy suñu suñu suñu carte d'identité. Mhm. te xam nga balaa ngaa xam drapeau bi ak euh, beneen symbole bu république bi muy hymne national kañ lay am doole. waaw man hmm? yi dañu inspiré wu ci le bonhomme d'Orient. Hmm. mooy bi euh, mooy nit bi yor épée bi guddi gi ñu koy gis ci asamaan hmm. xaw ma ab tool gars yi sooy sooy soo leen jàng euh, pour ma gën cee mën a wax. waaw wala euh, am na ñoo xamante tamit seen liggéey la ma ci profité di leen nuyu mooy waa musée des forces armées. wala ñi def topographie la. Euh, non musée des forces armées. Hmm. ma ci nuyaale colonel ko Gueye au passage ñoom lu bëri mun nañ la ko wax ci symbole symbolique de la république. Hmm. parce que ñoom tamit. Euh, ñoom ñoo amee patrimoine historique des armées. très bien commandant yaa ngi ma doon wax bi ñu nekkee merci Ndoye Bane. Mm-hmm, mm-hmm. ngay wax nga ni balaa ngay xam ne drapeau moo am doole lan nga bëggoon wax. xam nga yàlla dafa def ma am chance. Euh, mm-hmm. dëkk feneen encore fu du Sénégal ma nekk ci mission fu mel ne Darfour. ah mu tàng jéeg. wallaay. yàlla def ma nekk fu mel ne Côte d'Ivoire. yenn saa yi mu am lu ñuy wax médaille parade wala dara ñu tegal ma. Mhm. suma hymne national. Mhm. bàkk la. munoo xam. ndeysaan man li may sentir. ma ci profité di wax sportif yi. drapeau bi ñu leen di yëkkati di leen jox. mooy suñu carte d'identité. mooy suñu signature. hymne national bi ñu leen di tëggal. li ñu naan junj ñuy riig nañ. Mhm. loolu moom mooy suñu bàkk war na yokk sa jom. ndax man heure bu ma déggee hymne national du question ci tele laa toog may wax de. Mhm. man damay am frisson nga jëf jëf yi mhm. mhm. ah euh, su ma amee fit. dafay gën a yokk ndax lan ndax xam naa ne sama réew ma ngay bàkku te nit war nga xool soo nekkee ci réew. lan nga mën a defal sa réew. ban njëriñ nga mën a amal sa askan. Euh, ndax mën nga bokk ci sa askan. nga ëpp alal ci sa askan. nga ëpp teraanga ci sa askan. mais munoo génn ci sa askan. mais léegi kon Sénégal. Mhm. bu ñu la nee sénégalais nga ngay milliardaire ngay millionnaire ak nga ñàkk ak nga am yëpp. na nga xam ni mënoo génn ci sénégalais bi nga doon. ndax boo génnee Sénégal naan ñaa ngi dem beneen dëkk. bu boobaa da ngay nekk un apatride. Euh, léegi man bëggoon laa comment ça manifeste euh, par exemple l'incivisme au Sénégal. Euh, incivisme au Sénégal nee naa la mooy suñu sport. Mm. réewande bi nee na. commandant ñi kontaan bare nañu man nag fii lu ne laa fi lii nee nañu il faut des émissions comme ça j'ai les larmes aux yeux mi ngi may maa ngi France mais mi ngi may fàttali sama nation fàttali ma sama patrie ému euh, waaye itam triste na. Mhm. noonu la ko bindee ndeysaan. xam nga man dama koy wax am naa fi visa cinq ans Canada avant may dem observateur. mu munoon mhm. toog. mais man. dama ne Sénégal journaliste nga aussi. waaw la waaw euh, ma ci nekkoon naa aussi actrice et puis consultant plusieurs rajo j'ai été aussi officier relations publiques pendant 14 ans des armées. d'accord euh, man tey nga may ma visa États-Unis nga may ma visa feneen ak feneen ak liggéey feneen bëgguma. j'ai eu la chance continent yu bëri def naa la mun naa ne continent yu mais Sénégal benn la. Mhm. on a un très beau mais munoo ko xam. fii ngay toog heure lekk ñu ne la kaay lekk. dëgg fii ngay toog ñu ne la kaay naan fii ngay ñëw gan ñëw mu gënal gë waa kër gi waa kër gi mais nag mu ngi commencé di dem. ma ne leen Sénégal suñu sport national mooy insolence bi may gis yenn saa yi ci rajo yi bi may dégg yenn saa yi ci rajo yi ak télé yi yenn yi waxin bu ñàkk sa ak ñàkk orma kilifa yi. te ñàkk a waxante dëgg. parce que tey dañuy gis nit ki lu muy def rek daf ci xool intérêt man mi jàkkaarloo yéen mun naa toog tey parce que maa ngi liggéey état major wala maa ngi leen pour lu neex kilifa gi bu nekkee murit ma nekk murit bu nekkee tijaan ma nekk tijaan. bu nekkee xaadir ma nekk xaadir ndax la ndax circonstance damay naan nit ku amul fierté. tu es comme un oiseau sans plume. dellu sil de. Sénégal commandant dellu sil ci nit ku amul fierté. Mm-hmm. Euh, fierté euh, euh, dafa xam nga ci dagat la nit ñi mun nga nekk gox te doo gore mm-hmm. te nit ku gorewul moom man la yem mm-hmm. nit day fàttaliku nit day jëf-jëf bu rafet te nit ko aussi même bu nekkee ci organisation toujours ma koy faral dégg Sénégal nga taxaw menacé ne on va monter à la vitesse supérieure violence état rek moo ci am droit tey ngay syndicaliste ngay organisation civile et tout dama leen di renvoyer en français ci la Ahmed Sékou Touré doon dans stratégie et tactique de la révolution mu ne toute organisation sans idéologie commune ressemble à un rassemblement d'hommes sans pensée et sans objectif commun mm. dans de telles conditions l'organisation manque de vigueur et de perspicacité hmm. Frantz Fanon daal di koy feelu fële hmm. daane s'il se trouve un Sartre ou un Verdier le cardinal pour dire que le scandale du problème noir n'a que trop duré je ne peux conclure à la normalité de moi aussi je dirais que au Sénégal ça suffit il faut qu'on le courage les yeux dans les yeux qu'on se parle et qu'on se respecte que ñu bàyyi yenn kilifa diine kilifa diine la kilifa aada kilifa aada la tey da ngay xool même ba ci parti politique bokkuñu parti politique ñuy saagante mm. mais c'est normal mm. fan lañ ko teg même bu fekkoon am na aussi mais parti da ngay am idéologie mais 300 idéologie man jàng naa philosophie xaw ma ko tey tey parti boo ko nekkee aussi. mais da ngay créé nga ni jàng nga philosophie waaye xamuloo. 300 idéologie sama jàng ak lu mm. tey tey même boo amee parti war nga créé école du parti. ñuy toog ñuy jàng xamante ñun ñëpp d'abord ay sénégalais c'est pas parce que bokkuñu obédience que dañu war a xasante c'est pas parce que bokkuñu diine que dañu war a xasante mu aadama dafa fort. tey lan ngay gis plateau yi ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo war a dem politique mooy lan gestion de la société mais yow bu dee gestion boo xamante ne tey bokkuma nit ki dama koy saaga dama koy xas ak di ko jiiñ ak di ko tuumaal ana sutura na teggin nga foog ne yaa ngi ci la yaa ngi ci fayda ñu bëgg dañu foog ne politique moom mooy saaga politique moom mooy xaste hmm. wala démocratie mooy wax lu la neex les gens démocratie liberté de presse liberté ma ñëw ci presse bi. Mhm. gis nga ngeen baal ma du. liberté d'expression. liberté d'expression ak liberté de presse yëpp gis nga journalisme man dañu ne yéen ay quatrième pouvoir mais xam nga depuis France ñu ngi lay envoyé message mais la presse est le premier pouvoir mais presse bi. Mhm. dañ ko war jox à des mains expertes. n'importe qui n'est pas journaliste. vrai mhm. communication elle doit être d'éthique et sociale. Mm-hmm. elle doit se faire dans la mesure pour éviter la démesure. gis nga image jàngal nañu ko en journalisme. Mm. dafa nekk variable boo xamante c'est dangereux avec le temps. parce que tey image bi nga xamante ne yaa ngi koy def xamoo li ngay def lan la ëllëg mun na nga tourner contre tey ma taxaw ci télé taxaw ci rajo yi di xas Ndoye baan Ndoye Bane amul soxna Ndoye Bane amul doom. Mm-hmm. Ndoye Bane amul ay goro. Ndoye Bane amul ay cousin Ndoye Bane amul ay cousin yow xamoo ne kenn ngay laal c'est toute une famille bu ngay bu ngay laal gis nga nit ki. li ma leen doon wax ci démb nit ku nekk waa nga xool fi nga jóge cosaan dafa am solo ci doomu aadama te aussi diine waxuma diine musulman rek de. diine ñëpp ba ci muy catholique jàngu bi mu ci muy kii. Mm. mais amul benn religion buy insité à la violence mais l'islam moom mooy jàmm. salaam. te nit bu fekkee yow yaay borom kër gi bi ma jógee ci presse bi ma attaqué père de bi sa doom boo ko jàngalul ay valeurs morales ay valeurs religieuses mm. yow sa bopp aussi. nga jàngal ko ni ñuy doxee ni ñuy waxee ak ni ñuy soloo tout d'abord yow aussi nga koy doxalee mais bu boobaa yaakaar naa ne éducation bi la ñu mais tey aussi lu ñëw ñu ne état no l'état ne peut pas tout faire l'état ne peut pas tout discipliner école aussi tey nañu waxante dëgg tey école am nañ ci ay éducation morale ak éducation civique boo xamante ni daan ñu ko jàngal au niveau de l'école disparaître nañu mais nag lii def ci baax xam nga la moo tax. Mm. lii war nañu pousser ñun Sénégalais ku nekk. Mm. ñu def de l'introspection maanaam ñu dellu si ku ci nekk xool xam fi ñuy jëm et surtout jeunesse bi parce que moo tax j'ai beaucoup loué la rentrée citoyenne bi nga xamante ni son excellence monsieur le président de la république defoon na ko surtout si les jeunes. Mm-hmm. mu ne j'affirme pour les jeunes. que notre monde est possible et qu'il est possible de plier le destin à l'aune de notre rêve, par la volonté, par l'audace, par, euh, également par la confiance en soi. mais aussi aussi je rajouterai mm -hmm. par la discipline mhm. parce que tey dëkk bu mel ne Japon gënuñu riche Chine Chine laa bëgg Chine gënuñu riche mhm. parce que tey ëllëg ñu toog di xastante war nañoo jël suñu doom yi ñu jàngale leen leen yóbbu leen ñu defi ba euh, kii série S ñu xool tey bu ñu amee pétrole bu ñu amee or bu ñu amee gaz suñu doom yi ëllëg moom la ñuy wax ci développement durable la gestion future yan xale la ñu mën a tàggat ñu préparer leen pour ëllëg mhm. ñu mën a dem mais tey boo xoolee damay am habitude di ko citer pays bu mel ne Corée du Sud en 62 mhm. Sénégal da ko doon aidé en 72 ñu dem tey ba ci autosuffisance alimentaire dem bay exporter lan moo leen ko parce que ku ci nekk danga nga defoon un retour à agriculture pour permettre euh, ñu ñu am discipline mais tey lan lañu lan lan lan mooy suñu chantier xas. ñoom dañoo am kilifa. mais kilifa dafa am te maa ngi koy wax encore nañu war a bàyyi loo wax nga ni je monte à la vitesse supérieure la violence est l'apanage de l'état état moo am droit am doole. te beneen nit ki bu ngeen ko jëlee jiital ko bul xoolee diw parti bi moom moo am solo mais l'institution qu'il représente. institution dafa am solo muy institution présidentielle muy institution ministérielle muy institution parlementaire c'est des pouvoirs mais aussi presse bi dañuy man moom laa dañoo am un rôle très déterminant à faire gis nga man su ma daan réussir samay concours généralement wala may préparer concours xam nga ci lan laa ko doon basé wu dama daan xool autant ci éditoriaux yu mel ne ay soleil comme nam dem si yàlla baara Diouf yàlla nañu yàlla fay. maam les Camara. dama daan toog ma xool ay émission yu mel ne comme seen émission bi waree ak ay émission yu mel ne ay fenêtre sur l' éducation et en herbe ou bien en toute liberté nga xam ne politique la woon mais des politiciens civilisés mais il est temps que ñu siffler la fin de la récréation il faut que l' autorité et dëkk bu amul autorité ay bàyyi ma moo leen bien il faut ñu taxaw am fuloo am fayda et que les yeux dans les yeux ñu ñemee taxaw waxante dëgg te bàyyi di wut promotion au nom de l'éthique et au nom de la valeur bi ko ci wute boo mhm. waxee loolu mooy ne fa nga nekk rek nga jël ko def ko xeexukaay mhm. nga bëgg yokk sa sa daraja sa say mbir ci la nga nekk daal nga defee ci defee ko na nga xam ne euh, jaaduwul loolu nga bëgg a wax de euh, foofu ma ci waxaat encore may ne nit ñi na xam ne en dehors démb ëllëg suba nit ki da ngay ko da ngay fàtt day def toujours sa xel ne da ngay dëddu. très bien te am na ah, benn ah. waykat bu ma neex. way benn way bu am solo ñaari sax. bisimilah waaw. kenn kii muy <laughs> Assane Ndiaye. mu ne. mu ne yaay wutaloo ma way. commandant da nga da nga branché nag de. yaay wutaloo ma xas. Mm. dafa am solo. fu ma neex koy déglu comme man ba léegi même samay doom ne nañu papa da ngaa parce que man ñu mel ne. ay ay ay ay mbay. Mm-hmm. xam nga bu demee ba ne soo mu wayul dem na. Mm-hmm. xam nga yooyu c' est des thèmes. soo mu woyul dem na. soo mu woyul dem na. mooy foofu lay teg loxo parce que daf ciy baax ci kër yi ñu gis ci par exemple dañ ko daan gis livre lëkk le lièvre nga xam ne xale bi dana xam conte yi ñu ngi koy caq ci biir euh, lecture ñu koy jàngal mais léegi il faut dire que li changé dafa bare mun nañu wuute xalaat waaye nañu ànd ak teggin ak xorma. ci diggante yi wutee xalaat fii lañ ko fekk opposition dana am leneen ak avis yu bokkul yi dafay am waaye nañu teg lépp rek ci discipline tekk ak tey yar ak mhm. teggin mhm. comme ni ñu koy waxee ndoy mhm. baal waaw ban solution nga ñuy jox ci l'incivisme au Sénégal euh, incivisme au Sénégal li ma ci jox moo ñu seetuwaat ak commencé par man mm. ku nekk xoolaat sa bopp xool yow sa ak par rapport ak yow même mm-hmm. nga xool sa ak par rapport ak sa waa ak sa dëkkandoo ak sa réew mu leen na ndax yow est-ce que maa ngi def li ma war a def balaa maa laaj li ñu ma war a jox solution yi dafa nekk politique mhm. solution yi dafa nekk économique solution yi dafa nekk sociale solution yi dafa nekk administrative lan laay woowee solution politique mooy une bon gouvernance parce que léegi dañu toll ci jamono jamono dafay dox mhm. inclusivité dafa am man maa amee décision set man maay jël décision waaye su ma ci mënoon diisoo ak ñi ma ko séqal dina am solo côté social ma xool léegi surtout xale yi ñu ngi xale yi ñu ngi jël géej gi xale yi ñu ngi yàqu xale yi ñu ngi dem te fa ñuy dem ne leen leeg ne dans cinquante ans dans vingt cinq ans fa ñuy dem ñu danañ daw si wut si fii ndax l'avenir c'est l'Afrique il faut ñu toog ñu gëm suñu bopp xool ñun nan la ñu mën a def ba mën a def ak suñu suñu suñu avenir et c'est possible mm. parce que tey damay jël toujours exemple ci armée nga baal ma tuuti dinaa ñëw ci armée li ñuy wax formation qualification à un emploi xale bi bu defee 18 mois ñu jël ko yóbbu ko ñu jox la presque une vingtaine de métiers 17 à 18 métiers nga tànn ci ñu defal la ci une initiation ëllëg même bu la buñ la yow sa wàllu bopp nga doon def hôtellerie wala nga doon def menuiserie wala nga def pompiste wala daa yow te yaa ko tànnal sa bopp c'est libre choix mhm. yow tey am nga benn base de données boo xam tey même buñ la buñ la engagé wu demoo police demoo gendarmerie mhm. boo ci góorgóorloo tuuti ëllëg di nga mën a demal sa bopp tey may ñëwaat encore ci volontaire de l'agriculture yi nga xam ne fam parce que dafa am important ñëpp ñu ngi xaar ci côté boobu état mhm. tey volontaire de l'agriculture bi tey nga dëkk fu mel ne euh, euh, euh, Thiès wala nga dëkk fu mel ne Louga tey yow même sa biir mën nga fa am sa benn 1500 à 2000 francs ne ma nooy def am naa ci benn volontaire nan la daan def au départ seen biir kër la am benn lopin de terre bu ndaw mu fay ji naana parce que technicien agriculture la. marché bi nga xamante ni mi ngi ci kaw la da doon xëy di dem di ko fa yóbbu di ma koy may benn téeméer ak benn ñaar téeméer. Hmm. mais téeméer ak ñaar téeméer boobu ëllëg lu mu la mën a indi tey ki nga formé volontaire de l' agriculture mu am benn hectare de banana nga xam nga benn hectare de banana nga ñaata la. ma ci saluer au passage waa Daaka bi ndax gis naa ci li sëñ bi di def avec 200 hectares benn hectare normalement boo ko defee je parle sous la supervision des DRDR mën nga ci am benn 25 millions mais tey loo bëgg gis nga nooy mbaal ci télé bi gis nga ko mu ànd amee oto bu rafet gis nga ko muy dem nga ne damaa bëgg a mel ne kii mais fan la jaar. Mhm. te gis nga loo nekkul taalibeem. Mhm. munoo nekk sëriñam. jërëjëf foog ñu nangoo ñax man tëbu ma tëb nekk commandant. dama doon wule. Mhm. di rampe ñu naan ma bidas gubi quartier di ma toroxal. te gis nga loolu nag. mais mais comment commandant julli julli golo woo de ah. ah ba bañu <laughs> mais ma tas sa yaram position tas sa yaram en position. <laughs> j'ai j'ai franchement. boobu beneen jargon la boobu. rampe dégg ko rampe. parce que nit ñi dañoo bëgg xëy amul kenn ko xëy tekki. déedéet. Kéba dafa mu jaar. déedéet ku nekk da nga am sa jaar mais looy def aussi dafa laaj sacrifice. foofu sañ na mais rek am. kenn amu ko c'est pas possible. très foofu sañ naa ci dikk tuuti ndax dangay ngay gis euh, ci sunu société yi ñu nekk. Mhm. Euh, nit dafay am jaar jaar ñu bëgg ko ci créer ay complexe moo ne de boo demee ca tugal ca tubaab ya sa jaar jaar boobu nga jaar mooy nekk li lay forger mooy nekk li ñu lay nawee da ngay dund lenn mu passé tey mu doon complexe ci yow te pourtant. moo la war a forger moo la war a defar macha allah. dogu ma la dogu ma la foofu da nga wax lu am importance mais dafa am foo la bëgg a tënkal tuuti. xam nga tey ñu ngi koy gis ci même ci étudiants yi ñu naan ay ngénte tubaab. waaw. moi j'étais étudiant. Mm. aw moon bourse. Mm-hmm. musuma xam bourse. sama papa nekk ci Louga. Mm. amoon nañ moyens yu ma jàppale dama daan photo di jaay. moom ma daan may may am 110 ticket petit déjeuner. Mm. déjeuner 40 francs petit déjeuner. c'est vrai. ma koy ñafe ba mu yàgg ma dem armée nekk gobi quartier lambda deuxième classe naaguru. kurukuru soo soo waxee soo waxee gobi quartier mooy. deuxième classe zéro. kirik mooy kirik kirik. d'accord très bien jógee fa ñafe et puis dama ko mos sa nangu. tay fu ma neex laay daagu fu ma neexee taxaw ci télé fu ma neexee taxaw ci rajo wax. Mm-hmm. Mm-hmm. ma jógee foofu ñafe def gendarmerie. Mm-hmm. defaat concours officier. toroxal nañ ma accidenté naa dóor nañ ma balu pétrole blessé naa deux fois de reprise. bi may ñëw armée maa ngi woon ak sama duel def sama duel 2 actuellement je suis doctorant parce que nit ki il faut nga nangu def un sacrifice. nga am loo taal nga boo ko defee. Hmm. ëllëg. Hmm. lu ñëw rek muy noonu man tey nekk colonel nekk général nekk commandant yëpp laa ci yemale. parce que xam na moo tax bëgguma samay doom ëllëg dara tax leen ndax sama yaay. yàlla na ko yàlla yëgal balaa moo dudd ñett fan avant. Mhm. dafa ma ne bul am xarit na sa jëf nekk say xarit. Mhm. ndax ëllëg say xarit sa jëf jooju moom moo lay wéetal na nga wéet gore te na nga ñàkk gore. mais tey lan nga gis. Mhm. alliance par intérêt. nit dangay am tuuti jom. alliance par intérêt la fi gis am patriotisme am civisme. waaw xool lan laa mën a defal sama réew. très bien. li ñu bëgg a wax yépp sax mbokk yi du fi xaj waaye liñ ci doon woote rek. mooy former les jeunes jox leen wax dëgg yàlla ay armes yu solides yoo xam ne demuñu guerre waaye àdduna sax boo dee xool da ngay wax combat la bu dul jeex. Mhm. da ngay wax ne guerre la bu dul jeex te yooyu yëpp il faut que ñu ñu jox la loo xam ne wax dëgg yàlla dañ la koy sol mu nekk loo xam ne daf lay dëgëral bu baax a baax dinaa gis ñu naan diw dafa libéré dafa libéré <coughs> bu nit libéré lan lay dem defi excusez-moi. mooy moom lay tëjee. mooy man bi waaw xam nga li nga wax ne euh, loolu question la bu may laaj. parce que ci biir loolu yaa ngi wax retour à la terre li nga wax ne ci combat boobu laay ñëw ma tëjee loolu. tëjee ko. Euh, da nga ne la vie est un combat <coughs> Napoléon mm. la vie est l'armistice c'est la mort. mooy repos. beneen bi encore. mu ne l'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime. Mm-hmm. Euh, li nga wax l'ambition dont on n'a pas la compétence. ah si euh, est <laughs> léegi li nga wax nii. Ah. Euh, armée. Ah, ah. leen di delloo njukkal. très bien. parce que tey xale yi nga xamante ni ñëw nañ armée. Mhm. am nañ beneen chance de reconversion dans la vie. mooy li nga formation qualification à un emploi. yow même boo demul police demoo gendarmerie. réussiroo ci concours yi. Mm. formation boobu mun leen jox muy un B à bas. nga doon def hôtellerie wala dara dina la permettre nga mën a am une reconversion sociale. Euh, na ma baal am na benn soldat boo xamante ne. Mm. marin la woon. Mm. il était cuisinier moom épi cuisinier. très bien waaw. xam nga ci lu ma commencé seen kër waxtu bi waxtu na dab nañu. waaw ñu àggale ko assume. waaw affaire voilà. affaire affaire soldat du sotti. moo tax maa ngi nuyu ñi nga xam ne ndey ndeysaan ñooy nekk ci front yi <coughs> dem euh, ca bërëb yi nga xam ne ñoom Evatra du ñu fa àgg du ñu nelaw ñu ngi ci. jaaxle waaye pour seen patrie daf leen ko jaral heure lekk ya xamuñu ko bés bi jot xamuñu ko waxtu bu jot xamuñu ko tabaske korité la ñu yemale dëddu doom dëddu lépp dem au non de la patrie yal na yàlla yàgg ñu leen sàmmal macha allah ñi nga xam ne itam. ay blessé de guerre lañu suñu xel mi ngi ci ñoom bu baax a baax yàlla na état bi gën leen a taxaw ne mbir loo ko taxawu taxaw mu bëggaat leneen lu ci dooleeku wax dëgg yàlla yàlla na yàlla defar boor yépp macha allah ñu ngi kontaan bu baax a baax yow itam commandant ci yow di la wax nga tàggatoo wax au revoir waaw léegi Europa bi dama ci nuyaat encore suma ministre de la jeunesse. Mm-hmm. Euh, sol naa tuni mais ñëw lu ma fi toogal euh, comme lu mel ne DEPA wala communication ak mais ministère de la jeunesse fa laa bokk. fa lañ ma détaché ndax sama kilifa la ma yóbbu. Euh, ma koy souhaiter un bon vent parce que moom ci côté yàq ak teggin jox nañu ci ay orientation parce que ñu ngi préparé benn programme national de promotion civisme ak programme boo xamante ni d' apprentissage à la citoyenneté active et cetera ma koy ñaanal nag loolu nga xamante ni ñoŋ na ko parce que nee na priorité président de la république te may fàttali encore ñun militaire quand on dit président de la république mhm. on parle du chef suprême des armées donc euh, may nuyu sama famille di nuyu euh, ñëpp di ñaanal réew mi mhm. jàmm. amiin euh, moo wax la ban image moo ma gën a neex ci 2017 bi. ban image 2019 bi 2019 bi. waaw. keroog sama yaram dafa daw. bi ma gisee l'archevêque de Dakar. oui ak sëñ Mountakha toog. c'est ça le Sénégal ma gis aussi ancien président. Mhm. ak président ñu toog. Mhm. réew mi jàmm rek la soxla. amiin jàmm jooju ah. maam Abdou nee na ah. maam Abdou nee na maam Abdou nee na maam Abdou yal nañu ko yàlla fayal. amiin nañu tàpp xol yi. Ah, macha allah kon a nañu tàppe xol yi mu wuteeg tàppe dóor waaye nañu dalal nañu dalal. Eh. sakkin baax na salaam baax na luñ ci yàlla dool li doy eh, eh, doyul macha allah. ok merci beaucoup Ndoye Bane yow itam. xam de la commandant déglu nañu ko mu wax xalaatam. non commandant su commandant waxee ba pare y a rien à dire. y a rien à dire très bien <laughs> <laughs> Eva Tra nag moom. Ah, euh, am na droit am na droit ah. remercier ñi nga xam ne ñooy euh, ñoo ko solal mbubb mu rafet bi sama rakk Dioma Sow Dioma je te remercie vraiment ak tout le cœur ma nga nekk fële ca Anne Maris 2. Euh, DS culture la koy wax mun nañoo abrégé rek Dioma Sow DS Couture merci ma nga nekk en face de la grande mosquée bi nga xam ne moo nekk Anne numéro téléphone am mooy le 77. 549 08 80 77 549 08 80 alors ñu ngi ci nuyu bu baax a baax soxna Kumba Nguy Caam ñu ngee nuyu Anna mu Faye ñu ngi nuyu itam colonel Tabara Silla maa ngi nuyu tey bépp jigéen boo xam ne da nga nekk ci armée bi jekk lool ci yar sa waa kër nekk ca waaye itam jekk lool ci terrain bi di ca dem di dox sa waar yal na nu la yàlla sàmmal yàlla sàmmal nu seen borom kër yi ak seen njaboot ak lépp lu ko wër macha allah yàlla dolli jàmm nag TFM Miya merci à toi dañuy kontaan saa su ne ci ni ngay organiser émission bi yàlla na taxawaay bi yàgg ànd ak say càmmiñ ñu ngi leen di wax rek rendez-vous altine macha allah lu dul baax baax ko gën yal na ñu yàlla may sakkin ak salaam bon appétit à tous.